alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursaliin nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa asxaabihi ajmaciin amma baad mbokki jullit yi noo ngi sant sunu boroom tabaaraka wa taala di julli ci ab yonentam di leen fàttali di fàttali sunu bopp rek ne nit ñi jullit yi boo leen xoolee ci géew bi ñu nekk suñu borom tabaraka wa taala ñu fi ñu nekk fi di njëkkante di course ci def aw yiw nit ñi ñeenti xaaj lañ xaaj bu njëkk bi mooy nit ñoo xam ne boo leen fekkee ci biir xeet wi dafa mel ne ñooy groupe bi nga xam ne mooy taal xeet wi ñoo leen di yëngal bu dee ci géewub xam-xam ñoo leen di xamal bu dee ci géewub jëf ñoo leen di womat ci jëf foo leen fekk ci yëngu lañ nekk ci lu am njariñ ci lu am njariñ ca la ñuy wax ci lu am njariñ ca la ñuy jëf yemul ci seen bopp waaye ku leen jege sax sëg yëngatu guddi ak bëccëg ci lu am njariñ ngay nekk fuñ nekk daal foofa day dund day dund ci jaamu yàlla dafay dund ci wax lu baax ak def ko ak ci jariñ doomu aadama yi boobu xaaj daal dafa mel ne taw boo xam ne bu sotti ko ci suuf ñax ma dafay daal sax màgg ñu daal di koy gis mu naat su ko defee daal di meññi nit ña mën koo jariñoo ñooñu nag mooy ñi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala baaxe na leen suñ toogee di xalaat wala ñuy tër seeni tër ci yañ bëgg a doxal plan yi ñuy teg guddi ak bëccëg jéggi na seen njariñul bopp àgg na ci njariñul xeet wi ñi nekk ci tolluwaay boobu nag martaba boobu ñi fa toll ñoom ci seen bopp sax mën nañoo rawante ndax am na ci ñoo xam ne seenu yëngatu àgg na ci bu ñu yëngatoo aw xeet yëngu maanaam xeetu lislaam yépp yëngu am na boroomi xam-xam yu mag ci biir lislaam yoo xam ne liñ liggéey ci biir lislaam moo xam ci seen mbind la wala ci seenum njàngale wala ci seenub woote wala ci seenu tasaare yiw foo tudde seenu tur adduna bépp maase nañ xam leen xam seen itte ci seen liggéey ci lislaam bi ñooñu aw xeet lañuy ñuy yëngal am na ci ñoo xam ne xëy na àgguñu ci yëngal aw xeet waaye mën nañoo yëngal am réew bu foo leen tuddee ci biir réew ma xam ne ah kooku day ku fi nekkoon la wala mi ngi fi sax waaye ku baax la ku ko xam ci li nga ko xam mooy yëngu ci lu baax ak def ko ak woote ca ak yëngu ca kon kooku àggul ca kay yëngal àdduna waaye mën naa yëngal mbooloo mu baree bari am na ci ñoo xam ne àgguñu ci yëngalum réew waaye mën nañoo yëngal dëkk bañ nekk seenub dëkk képp ku leen jege wala ku leen gis wala nga jaxasoo ak ñoom faaw nga tànqe ci ñoom yiw woo xam ne walay mën a jariñ lay doon am ci ñoo xam ne seen yëngatu fa mu yem mooy mën nañoo yëngal kër am ñoo xam ne dem nañ ba kenn kañ yore di ko yar mën nañ koo yëngal ba luñ jóg jëm ca mën nañ ko mu ànd ak ñoom nekk ca waaye ñoom ñëpp nag teewul benn kuréel lañ benn ba lañ li leen boole mooy yemuñu ci seen bopp jéemu ñoo defar seen bopp ba mu baax waaye dañoo bëgg a defar seen bopp ba mu baax defaraale ñeneen kon ñooñu ñoo bokk boobu géew ñooñu nag buñ xoolee yonent yi fi mas jaar yépp kuréel boobu ci lañ bokk buñ xoolee saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yi fi mas a nekk yépp ci xaaj boobu ci lañ bokk imaam yu mag yi nga xam ne ñoo fi jaaroon ñu siiwe leen ci xam-xam ak diine ak sunna ñooñu ci xaaj boobu lañ bokk xam ngeen ne moos bu dul ay saxaaba it képp ku dégg turu abdullah ibnu mubaarak wala nga dégg tuur sufyaan athawri wala turu al imaamu shafii wala al imaamu malik al imaam ahmad ibnu hanbal ñooñu seen i tur àgg na fu nekk ci àdduna te seenub liggéey ci lislaam képp moo ko àggale foofu foo leen tudde fu nekk te ñoo ñu doon ay jullit ñooñu xam nañ leen ñooñu ñooy ñi nga xam ne dañoo jóg góor góorlu amal lu baax ay nit fekk ci leen ca roy leen ca lu baax loolee jariñu ca am ca tuyaaba ñoom ñi tasaare woon lu baax loolu ñu am ca tuyaaba ja ñooñu ñooy ñi sunu borom tabaraka wa taala wax ne ulaika yusaariu yusaariuuna fi lxayraat nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne dañuy njëkkante dañuy rawante jëm ci yiw jëm ci yiw fexe ba géewub yiw kenn du leen ca raw yoonu yiw kenn du leen ca raw mu ne wahum laha saabiquun nee na ku njëkkanteeg ñoom nag ñoo lay raw ci bunt boobu ñooñu ñooy ñi nga xam ne saa bu xeet wi demee bay bëgg a dee ci wàllu xalaatam dem bay bëgg a dee ci wàllu imaanam muy ngëm yàllaam di bëgg a dee ci wàllu xam dara ci diine ji muy réer gu tasaaroo ñooñu la borom bi tabaraka wa taala di delloosiwaat ñu delloosi xeet wi ci seen diine yeesalaatal leen ko bañ xam ko loolu mooy kuréel bu njëkk bi ci jullit yi ñaareel bi muy ñu ne ci ñaareelu martaba bi ay nit lañ yoo xam ne lu baax rek lañ bëgg meluñu ne ñu jëkk ña ndax fexe nañ ba xëy na mënuñoo jóg di sos yu baax di ca indi nit ñi di ko amal mënuñoo yëngal kenn itam bam yëngu waaye fexe nañ ba ba baax seen waxtu ak seen coono ak seen yëngatu mooy déglu ñu baax ñooñee lañ nekk bañ fekk leen ci ànd ci ak ñoom jiitewuñ lu baax waaye nangu nañoo topp koo xam ne kuy woote ci lu baax la dañuy liggéey keneen waaye mënuñoo beru ñoom di liggéey ñoom dong dañuy keneen day jiitu ñu topp ci waaye mënuñoo jiitul seen bopp ci yiw ñooñu itam ñu ngi ci biir xeet bi fu kàddu yiw jóge taxaw woote ni bokki jullit yi nàngam jot na jullit yi def ko ko xaaj boobu day daal di jóg wuy si doo am lu muy déng-déng bu dee lu ñuy joxe la day joxe bu dee yiw wuñ war a wax la day jóg taxaw di ca wax la mu ca war a wax bu dee luñ war a def da koy def bu dee fu ñu war a dem dafay dem kon nag ñooñu ñu ragal yàlla lañ ñu bëgg la baax lañ donte àgguñu ci martaba ba ñële àgg yët nag martaba bële la lañuy kawe kawe mënuñoo ñàkk ñii ndax ñii ñooy armée bu lislaam ñii ñooy ñi nga xam ne ñu su ñële xalaatee ba tëral ba dara des ci lu dul jëf ñii ñooy jëf kon ñooñu mënuñoo ñàkk ñooñu nag ñu nëbbu la ñuy doon lu gën a bari ñi ñuy nattoo ñu fés nekk ca kaw ñu ne ñële ñooy imaam yi ñoo ne ca kaw ñooñu ñee ñu ne ci kuréel bu njëkk ba waaye ñii ci kuréel bii nga xam ne li ñuy déglu mooy ku leen woo ba ñu wuy ji ñoo ñu ñaari ñu nëbbu lañuy doon moo tax dañoo wax ne ñoom ñooy al atqiyaul axfiya ñooy ñi boole ragal yàlla ak nëbbu moo tax kenn du leen xam kenn du leen jox benn considération ba boo buñ dikkoon sax di seet si nit koo xam ne borom personnalité la du leen bàyyi xel day defe ne ku ñàkk solo la su nit tàbbi woon ci dara ba mu ñëw di ko tinu sax su waxee ba àggalit mën nañ koo bañ a faale ndax dafa ne amul benn daraja boo xam ne mën na cee sukkandiku bay tinu tinu kenn waaye nag ma nga ca lam nekk rek fu ko ña jiitu daal ne ko toogal foofu nekkal ci nangam nangamay sa liggéey ma nga ca loola guddi ak bëccëg amul soxla ci leneen mooy ñu mel ni ñu yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ne kooku su fekkee ne dañ ne ko toogal foofu garde garde rek mooy liggéeyam in kaana fi su fekkee dañu ne ko toppal ca gannaaw féete ñëpp gannaaw ñu ne ci kanam ngay dox waaye bul wàññiku nee na it foofa rek mooy place ñoo ñu ñooy ñu mel ne Omar ibn al benn bis euh, kam yabaloon muy jihaat yi dafa ñëw di ko nettali xew-xew ba di ko wax bégal jullit yi gañe nañ yàlla dogal na ñu gañe waaye nag xeex nañ ba gañe de waaye nag am na ci ñu faatu tuddal ko ñenn ci ñi gën a xam ñi gën a fés ku tudd rek omar radiallahu taala anhu ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ba mu yàgg mu ne ko nag yow amirul muminin du ñuy wax rek sax am na ñeneen ñu des waaye nag xamoo leen ñooñu su ma lee waxee seeni turit ñooñu du ma leen xam nee na omar daal di jooy ah leen di wàññi su leen omar xamut yàlla xam na leen su leen omar xamut yàlla xam na leen kon ñooñu ñooy ñi nga xam ne su fekkee yëngaluñ keneen itam keneen a ngi leen di yëngul yëngal woote wuñ waaye suñu wootee aw yiw ñu wuy ci kon kooku kuréel la boo xam ne yiw wu bari mi ngi ci ba tey ñooñoo ngi ci biir xeet bi ñetteelu kuréel bi ab kuréel la boo xam ne nit ñu baax lañ waaye nag nit ñu jafe soññ ci dara lañ lu baax lañ bëgg waaye soññi leen ci lu baax ñi jóg jëm ca lu jafe la loo leen yëngale bu nes tuuti am na leneen lu leen di seralaat lu nekk ci wet gi su dee joxe suñ xalaatee ne ah lii kat kii li mu wax dëgg la waaye sama njaboot gaa ci gën a yey su dee yiw wuñ war a def xam-xam bu ñu war a jàngi nga ne ah ubbi nañ fii ci jàkka ji de bind boo xam ne jàngalekat bi timis gune dana ñëw joxe fi ab dars mu ne ca wet ga kër ga jege jàkka ja lool xel ma day daal di xalaat mu ne ah yendoo liggéey day sonn ba timis nga ñëw nag war a noppalu toog fa jàkka ja di xaarati bind loolu wax dëgg yàlla moom mënuma ko kon noonu la leen yëf ya di toppe ba seenu mbaax ci seen bopp la yem képp waaye woo leen ci yiw ñu jóg dem wuy ji loolu diis na gann ci ñoom ñu mel noonu itam ñi ngi ci biir xeet wi ñoom seenu mbaax jàllul ci keneen jéemu ñoo tasaare lu baax li nga xam ne moom lañu am jéemuñu ko dolli mu jëm kanam ndax suñ leen woo ñu jëm ci it duñu wuy ji jàpp nañ ne daal ñoom ñu ngi def farata yi ñi ngi julli ñu ngi woor ñu ngi nag seen asaka waaye nag amut leneen ñu ca teg suñ leen woo ci bépp loo xam ne lu xeet wi ànd di ko def la wala ñu jëm ci loo xam ne ni tey coobarew defal ko boppam loolu seen yoon nekku seen yoon nekku ci bu dee koor yi ngàtt nga loolu seen yoon newu ci li ñu séentu daal mooy ramadan ñëw ñu woor dem lañuy xaar bu dee ci wàllu julli mooy julli farata jot na julli nañ seen julli farata dem seen yoon bu ñu amee alal joxe nañ seen asaka waaye ay sarax ak yooyu yëpp bàyyi wuñ ko xel kon ñooñu ay nit lañ yoo xam ne dëgg la liñ bëgg ci ñoom ña ca waaye nag doonuñu ñoo xam ne ñooy yëngal xeet wi ñu ñi nga xam ne it su xeet wi di jóg di jëm ci yu am yitte yi ña nga ci seen biir ba tey <coughs> boobu xaaj kon mënees na leen a taggee ci lenn am na lu baax lu nekk ci ñoom moo di ne borom bi tabaraka wa taala dafa digge lu baax digle lu baax ñu nekk ca di def seeni farata am yu yàlla araamal ñu bàyyi ko kon ñooñu ñooy ñi nga xam ne dañoo gàddaay li nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala da koo tere kon ñooñu ay muhaajiroon lañ loolu melokaan la wax ne melokaan wu baax la waaye nag ak gàttañ loo ngi ci seen biir lu ñeenteel ba nag nit lañ ñoo xam ne dañuy askanoo diine ji waaye askanoo googu ak lot la àndal lot gi nekk ca kuréelu ñetteel bi ba tax mënuñoo wuy ji kuy woote ciw yiw mënuñoo participer ci lu baax li jullit yi def lott googa dafa yëmut ci loolu waaye lot ga dafa àgg ci mënumaa def waaye kenn du defit nag mënumaa def waaye kenn du def buñ gisee ñooy def lu baax di ci góor góorlu mënuñu la ñuy def de waaye seeni kàddoo nga ci ñoom ñu ngi leen di wax xoola kee lam sol xoola comportement bi mu génn këram xoola nam mel itteem ak i waxam lépp mooy sànni ay xeer nit ñi ba noppi nag fàtte boppam kon boobu kuréel kuréel la boo xam ne dane man de du ma tabax waaye nag kenn du fi tabaxe yitam ànd ak ne day askanoo lislaam day askanoo ak njullit wante jëf ja ci boppam wënewu ko ndax jullit la xëy na ma ngay julli sax xëy na ma ngay woor waaye jëf yi xeet wi bokk di ko def waxuma ne buñ ko ca woodu wuy ji waxuma ne sax day jiitu di woote waaye yëmut ca loola ña koy def ci boppam mu ngi leen di ŋàññi mu ngay wax ci ñoom mu ngi leen di jiw mu ngi leen di xas kon ñooñu mooy ñi nga xam ne mënuñoo réaliser te it duñ bàyyi nit mu réaliser dara dafa mel ne lort googu ñu lot dafa am lum jur ci seen biir bakkan muy loo xam ne dafay nuru kiñaan ba mënuta def waaye bëggul itam keneen def ndax su keneen defee su jëf ji rafetee day daal di feeñ moom dañuy daal di xam ne kon moom jëfam rafetul loolu daf koy daal di wuññi waaye loolu xel mu gàtt la ak ñàkk gindiku waaye àndandoo ci biir ñay def moom jëf ju baax loola lu yomb la daanaka boo xoolee ñooñu sax li ñuy def ci effort pour yàqal ñeneen ñay jëf suñ ko defoon ci jiima jëf boo tul danañ jot nit ñi wala ñu raw leen ndax lañuy daj ci coono pour yàqal ñeneen ñi suñ ko dajoon pour defar kon danañ leen jot wala ñu ànd ak ñoom kon mbokki jullit yi suñ xamee ñeenti xaaj yooyu ne yépp a ngi ci biir jullit yi kenn ku ne ci nun war naa xalaatal boppam moom fan la bokk su fekkee ca suuf la ko yàlla nattoo na góor góorlu jàll ci kuréel ba ko féete kaw su nekkee ci benn bu kawee na fexe ba àgg ca ñetteel ba bu fa amee diir na fexe ba jàll ci ñeenteel ba yàlla nu borom bi tabaraka wa taala def nu bokk ci ñi nga xam ne dañuy am yitte ba duñ nangoo gàttañlu seet loo xam ne lu suufe la jàpp ca ne lii doy na ma te fekk am na leneen lu ko féete kaw góor góorlu nag ak def effort ak góorgóorlu mooy tax su fekkee xam nañu ñeenti xaaj yooyu kon kenn ku nekk mën ngaa xam foo bokk waaye ñu xam ne it bokk na ci yi koy wone yi wone nit ki fu mu bokk tereeti yi yi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala daf koy wàcce daf koy amal jamono ju nekk mu wàcc ci ay jaamu yàlla loo xam ne ku bëgg a njëkkante wala nga bëgg góor góorlu kon géew baa ngoog njëkkantewukaay baa ngoog góorgóorluwukaay baa ngoog mbokki jullit yi noo ngi nekk ci weeru Shaabaan weer wii nga xam ne moo jiitu weeru Ramadan weer wii mooy weeru gaayu baax ya weer wii mooy weeru jaamukati yàlla ya weer wii mooy weer wi jiitu Ramadan weer wi mooy weeru barke ak njëggal weer la woo xam ne fi la nit ki waajale war a waajale boppam tàggatu ci koor su fekkee ne saxoowul woon di def kooru ngàtt nga ci la ko jiitu weer la woo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa fonkoon lool di ci woor di ci def ay jaamu yàlla di ci sarxe di ci def lu baax ñu xam ne weer wi bu jàllee nag weer wu mag wa moo ca tegu muy weeru ramadaan kon li tàmbalee fi jëm ci kanam mbokk yi insha danañ tàmbali xutba yoo xam ne danañ ci yee mbokk yi ci lu jëm ci weeru chaabaan yu bu baax a baax ak ci àtteem ak li ci aju xëy na jëmbul ci xutba bi ñëw yeneen ya ciy tegu dana doon ay xutba yoo xam ne ci biir koor lay jëm ak lu ci ajoo ki àtteem ba ba weer way jeex insha allah aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iri almuminina walmuminat allahuma barik lana fi rajabin wa fi shacban wa balligna ramadan allahuma wafiqna jamican wa acinna ala alsiyaami walqiyam wa ficli altaacati wa tarki almunkarat innaka waliyu dalika walqadiru alayh wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmacin